diggante ba fi El Ibrahima Diop ba fi tey jii ba tey jii. lu tax a ci El Hadj Ibrahima Diop. lu tax a ci El Hadj Ibrahima Diop. fu mu féete fa la El Hadj féete. Ndakaaru. bu ñëwee ci Doudou Ndiarouz. bu ñëwee ko fekkee HLM. buñ H&M. waa HLM xam ne. H&M taxoo ko fi indi. waaye Ndakaaru la dëkk nag. naa ca kër Vieux Seng. wax naa démb ca kër Vieux Seng. ne ndakaaru gi. ne ndakaaru gi. bi muy laata moom boppam. bi muy laata moom boppam. kajoor ko yilifoon. kajoor ñoo ko yilifoon. ba kajoor moo yilifoon ndakaaru. Jali Mbeng. moo xeex. moo xeex. ak Damel Birima di ko topp di ko topp. ba Mbijëm ba taxalee. kajoor ak ndakaaru. ndakaaro sooga am indépendance ba muy dem Mamadou Ndiaye Roos maamu wiye seng waa kër Kaba Ndiaye maam Majoor Penda Jigal maam ma Ndiaye maam ma Ndiaye Penda Joojo nee na ñooñu la àndal loola tax Umar des mi jëm Babacar des fo Babacar nee na ñuy dañoo yàgg de lan laa ciy teg dama ne. nee na li géwél yi bari ndakaaru nañu ràññeente ñi fi wàll si ak ñi fi fekk baas nee na njaaro si ñooñu la